waaw biteel bi dama koy leeralal ndax laaj yi bari na si te liñ si liggéey leen yëpp jeex na bépp góor la wax boo xam ne dangay fooye say awra nga xam ne danga fooye sa awra ba sa awra tuuti ba nga xam ne amatut farmu wala dijjatut wala dëgëratut biteel bi da koy dindi bépp góor goo xam ne wala rab def ko wala jind def ko wala ñu liggéey la ba nga xam ne sa awra day tuuti nga xam ne ne awra buy dellu la ndax boo leen seetloo nit ki bu awraam feebaree rek saa bu yeewoo bu xoolee awraam bi day mel ne luy dellu yooyu surtout si boori sedd nii muy sedd day gis awra bi di dellu di tuuti ndax awra dëgg dëgg dëgg dëgg nan la war a mel dafa war a dëgër mel na yàpp ba pare am forme mm, bu amul forme mën naa gàtt am forme mën naa gudd waaye mën naa dëgër loolu lépp si taayu nit ki la si nit ki ak nit ku ne ak awraam ni muy ni muy ni muy ni muy amee centimètre waaye nan bàyyi leen awra wërta nooy te awra wërta nit ki fu mu bu gisee li mu war a yëg war naa yëg boppam waaye am ñoom xam ne loolu nekk jigéen fii ba suba yëg seen bopp kon ñooñu dañoo feebar lii nag da koy si diiru trois jours moom la koy dindi te si biteel bi moo tax biteel bi toujours moo wax leen biteel bi mu dama leen bi defal mille force moom la biteel bi def mille force waaye biteel bi njëg gi mi ngi jar vingt cinq mille francs mu juróomi junni nga naan ko lépp dañ te nekkoon si yow mu juróomi junni lay jar vingt cinq mille kon nag di leen wax moom lañ leen indiloon si Kun Fayakoun TV di leen wax ngeen abonné seen bu mag bi seen bu mag baa ngi noonu jërë ngeen jëf incha allah bitéel bi daal moom amaan na ba léegi. waaw bitéel bi dama koy leeralal ndax laaj yi bari na si te liñ si liggéey leen yëpp jeex na bépp góor laa wax boo xam ne da ngay fooye say awra.